juróom-ñaari baat a ngi nii yu dooree WH soo ko maîtriser dinga nga mën a poser question ci anglais nu mu la neexee te mooy who what when where why how which laaj yi tàmbalee benn ci juróom-ñaari baat yi ma la tudda léegi ñoo ngi koy faral di woowee double edge questions benn bu ci nekk lan lay tekki boole ko ak exemple yu wér te wóor ay yoonu dem baat bi nu njëkk a am mooy who who la njëkk a am who bàyyi xel bu baax niñ koy prononcé who who who lan lay tekki mooy kan wala ñan wolof dafay faral di wax su dee kenn nit kan su dee mbooloo mu ni ñan mais anglais who rekk lay wax kon yaay xool who fi mu nekk ci contexte bi nga xam ba xam mbooloo lay wax wala ci kenn lay wax who kon mooy tekki kan wala ñan nañ dugg ci exemple yi boo ni woon who closed the door kan mo tej bunt bi man nako teki man na teki aussi who closed the door ñan ñoo tej buntu bi Deng pas parce que lenn lu lay wan fi ni ni kenn lay wax wala mbolo amul don contexte bi rek mo la koy leralal who closed the door kan mo tej buntu bi kon gis nga li la wax double A questions question yi nga xam da fay faral di commencer lan WH gis nga question bi mi ngi commencé who te who mi ngi commencé lan WH dégg nga who are those guys gaayele ñooy ñan who are those guys gaayele ñooy ñan fii moom da ngay xam ni mbooloo lay wax parce que those mbooloo ko tax a jóg who are those guys gaayele ñooy ñan who is your best friend kan mooy sa meilleur ami who is your best friend kan mooy sa meilleur ami maanaam xarit bi la gën a jege wala nga sa xaritu benn bakkan who is your best friend kan mooy sa meilleur ami dégg nga kon who yaakaar naa leer na dañuy demaat ci baneen baat muy waat waat mooy lan waat mën na tekki ci wolof lan mën na tekki aussi yan wolof dafay faral di wax bu dee menn mbir la mu wax lan su dee mbir yu bari la mu wax yan dégg kon nañ xam ne waat nit ñi taxuñu koo jóg comme niñ jànge woon léegi nga xam te ne aw nit a ko tax a jóg waat nag lu nekkul nit moo ko tax a jóg dégg kon bu ko bu ko laaj su fekkee ci nit ngay wax bul ko laajee su fekkee ci nit ngay wax ni kii what is your problem lan mooy sa problème kenn du wax ci wolof kan mooy sa problème mais lan mooy sa problème bu fekkee mel mbir nga bëgg a wax ci nga bëgg laaj ban jafe-jafe bu ba lan ngay wax what is your problem kon what mooy tekki lan ci anglais what is your problem lan mooy sa problème what are you saying lan ngay wax what are you saying lan ngay wax kon ñu bàyyi xel ba léegi ni yaa ngi seen lan WH WH ñu ngi koy gis ba léegi gis nga WH mu commencé lan baat bi di what what are you saying lan ngay wax bane exemple What's going on here? Luchofi. What's going on here? Luchofi. What's going on here? Luchofi. dañuy dem ci baneen baat te mooy when when nag mooy tekki lan kañ kon when ci temps lay wax ci jamono lay wax when mooy kañ dégg nga kañ nga ñëw kañ nga dellu si kañ ngay dem yooyu yëpp da nga koy dégg ci wolof dañ ci am ay exemple when did you start learning English kañ nga door sa njàngum anglais kañ nga tàmbalee jàng anglais when did you start learning English kañ nga tàmbalee jàng anglais beneen exemple when were you born kañ nga juddu bii moom da ko war a jàpp when were you born kañ nga juddu mais ñu ngi bàyyi xel ba léegi nii when lan la commencé WH when were you born kañ nga juddu when will you come back here kañ ngay dellu si fii beneen exemple la when will you come back here kañ ngay dellu si fii ñu dem ci beneen baat te mooy where where muy fan kon moom ci barab lay wax ci palaas lay wax dégg mais waxul ci temps parce que bu nee la fan bokkul ak liñ jàng léegi muy kañ where fan where were you born fan nga juddoo jàngal na léegi kañ nga judd mais kañ nga judd bokkul ak fan nga juddoo where were you born fan nga juddoo where were you born fan nga juddoo ba tey yaa ngi bàyyi xel ni ci where dañuy am lan wh where were you born fan nga juddoo where are you from where are you from fan nga bawoo where are you from mooy fan nga bawoo fan mooy sa cosaan tey nekk nga réew mi where are you from te yow senegal nga dëkk nga I'm from Sénégal de where are you from fan nga bawoo fan mooy sa cosaan where are you now fan nga jëm lool tam exemple la where are you going now fan nga jëm waa fan nga jëm nii where now waa fan jëm nii now mooy léegi dégg where are you going now fan nga jëm nii ñu am euh, beneen baat beneen baat euh, bi ñu amaat mooy lan waay waay mooy lan waay li mu tekki mooy lu tax waay mooy lu tax kon sabab lay laaj dégg nga sabab kon sabab moo taxa a jóg waay waay ndax saabu la nit ki waay muy tekki ci wolof lu tax da ko da ko wax nangam ak nangam la di nga ko wax sabab dégg nga why is the kid crying lan moo tax xale bi di jooy tey bu fekkee nit ki dafa la fekk nga toog xale bi nekk sa wet di jooy mu la why is the kid crying lan moo tax xale bi bo boobaakat di nga ni ko ah maa ko dóor de wala xale bi de dafa réew rek dégg why is the kid crying lan moo tax xale bi di jooy ba tey gis nga ni why am na lan wh ci commencement baat bi why is the kid crying lan moo tax xale bi jooy beneen exemple why do you look sad tonight lan moo tax nga jàq lan moo tax nga nuur ku jàq yaa ngi dégg lan moo tax nga nuur ku jàq guddi tey gii waaw njàqare daal mi ngi feeñ ci yow lan moo tax njàqare di feeñ ci yow guddi gi tonight suñ ko waxe mooy guddi tey why do you why do you follow my YouTube channel lan mo tax ngay top sama chaîne YouTube bi di kaay lak anglais Of nak bëggu naa nga tontu ma ci commentaire yi ndax chaîne YouTube bi bari na mais yow lan mo tax ngay top kay lak anglais Why do you follow my YouTube channel lan mo tax ngay top sama chaîne YouTube bi di kaay lak anglais bëgg naa ko xam ci commentaire yi ñu am banin bat te moy how how nak xamna di nga ni ah yow non na daga ni mo won question yi commencer WH na nga japp ni bi mom ci bir la bok deg malgré giso ci WH rek nga gis mais jappal ni ci bir la bok wa ndax am na sax ñu ci dool yu upp yi ni deg amna am na tam ñu jël yu gëna neew li mais jappal ni WH yi ko commencer lañ wax waye how mi ci la bokk xaaw nag dafay tekki wolof naka xaaw dafay tekki naka am na yenen mana? tekkiwul naka rek dama la wax naka rek mais am na yeneen maana nañ xool how can I help you how naka laa la mën a dimbale how can I help naka laa la mën a dimbale lu ci bari bu fekkee réew ma la ak yenn béréb yi soo demee di jëndi wala nga dem ci yenn béréb yi nga xamante ni euh, maanaam nit ñi dañ fay ñëw di dox yitte ngir faj seen yenn aajo yi yaa ngi dégg dañ naan how can naka laa la dimbali muy tekki loo bëggoon lu bari moom fii ñun dañuy wax loo bëggoon how are things going naka mbir yi how are things going naka mbir yi how mbir yi ba tey yaa ngi am maanaam mii di naka <laughs> ok how old are you ñaata at nga am gis nga kon da ngay gis ni how tekkiwut foofu naka kenn du wax naka ah, nangami at nga am déedéet den naa ñaata at nga am kon how tekkiwut foofu naka kon how dafa am yeneen maanaam yu dul eh, maanaam naka rek ndax naka dafa wane meenol muy manière dégg nga how old are you ñaata at nga am ñu am beneen te mooy bu mujj bi which which dégg nga noonu lañ koy liire which wicc nak moy teki ban denga nga moy teki ban kon choix lay laaj manam li nga tan wala li la gënal wa choix moko taxa jog a Example example which do you prefer the red one or the blue one day laaj nit ki ko ban nga préférer ban nga tamu ban nga tan which do you prefer ban nga tànn wala ban ngay tànn the red one or the blue one the red one mooy bu lan bi bu rouge bi wala nga ne bu xonq bi or the blue one the blue one mooy bu bleu bi waaw comme exemple nga tegalal ni kii ñaari bic ni ko bu bleu bi nga bëgg moo la gënal walla bu xonq bi moo la gënal Which one do you prefer? ban nga ci tànn the red one or the blue one bu bi wala bu xonq bi the red one mooy bu xonq bi or the blue one wala bu bi which of my books would you like to borrow mu ne which of my books ban ci sama téere yi would you like to borrow moom nga bëgg a àbb to borrow something mooy àbb dara Which of my books would you like to borrow ban ci sama téere yi nga bëgg a àbb kon xëy na dafa yor trois téere wala quatre téere kon boo ñëwee rek alm téere dina la laaj ban nga soxla ci téere bi which of my books would you like to borrow which team do you think will win dégg nga which team do you think will Wayne dégg nga ban équipe nga jàpp ni mooy gañe which team do you think will win wala nga ni ban équipe nga yaakaar ni mooy gañe fii la leçon bi yam waaye nag dañ lay laaj benn question dafa am lu ñu sàkku ci yow mooy da nga may laajal trois questions yoo xam te ni da nga ciy dugal who yaa ngi dégg day tàmbale who ak lan ak what ak when maa bu ci nekk nga defal ko phrase yu boppam ndax jàng nga lan lay tekki jàng nga lan lay tekki jàng aussi when lan lay tekki kay lakk anglais lii moo nekkoon sunu leçon ju leen di fàttale rek mboolem ñi nga xam te gan lañ ci chaîne bi ñu abone eh, te bës cloche bi di partager vidéo yi ngir yeneen leçon ñëwaat yu dàq yu gën a neex ba beneen yoon goodbye